رحمة ربك بمجنون بصير مبكي عبد القادر maa ngi lay ñaan nga jottali Serigne Mountakha Mbacké xalif général kullu murid jottali nuyu doomam nuyu soppeem jiitu réew mi basiru Diomaye Diakhar Faye ak ay ndokkaleem ci bés bu tedd bi man ak eh, délégation bi ma àndal ñu ngi jaar ci yow di nuyu njabootu Serigne Touba gi yëpp ak taalibe yi yëpp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 yéeneem yéeneem weesu na lépp loo xam ne mu ngi ko fiy def walla bëgg na ko fee def li mu fu def lu mu fi bëgg a def yéeneem weesu na ko ndax tolluwaayu tubaa ci réew mi ñuy fàttali mbake mooy département bi ëpp nit ci département senegal Touba moo ëpp nit après Dakar sëñ bi président de la République mu ngi massaw mbooleem ñi nga xam ne am nañu jafe-jafe ci inondation yi ndox mi na ñi dëkk Touba di leen wax ne bi muy jël réew mi ak nawet bi dafa jege waaye fas na yéene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 ñun ñoo koy defaral sunu bopp te ndaw yi dañ ci am place loolu yitteem la yitte président la waaye it sunu yitte la ñun ñi bokk ci gouvernement bi maa ngi dolli ci turu président la république di sant comité d'organisation bi nga xam ne sëñ Bassirou Abdou Khader moo ko jiite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 ba nga xam ne yaakaar bi sénégalais yi am ci moom ba dénk ko réew mi mu attu yéeneem ci réew mi mu mën ko mottali ci jàmm te mu tegu ci liggéey ak ci jàmmu yàlla loolu moo dëppoo ak jàngaleem sëñ Touba ndax moom kat sëñ bi wax na ñu